rahmatullah ñu ngi wat di nuyo bu baax de Nourou mi nga xamanteni mo jité délégation bu sel bi ko ci Bachir Muntaga Daha ak Cheikh Omar, bu Cheikh Mohamedul Bachir ak mbooleem délégation bi nga xamanteni and nañ tay ñew téwé fi ndaje mi nga xamanteni li solo si moy bu mag bobu di ziarah de la famille omarienne di amé feulé ci Louga Cerno nuru wax bi rafet na te matena leral nga solo si nga xamanteni bis bobu am ko waye leral nga tamit solo si nga xamante ni képp ku nekk ci kaw suuf am war nga am yitte waaye sa njariñ la ci nga jéggi ay seqi ay jéego wala nga yëkkati sa loxo ngir tàllal jëmale ko ci Thierno Mouhamadul Bachir ngir loolu nga xamante ni mooy mbaax gi ko yàlla séddee waaye xéewal yi ko yàlla séddee tamit mu mën la ci sédd loolu tàmbali depuis ci Cheikh Omar Foutiou ba yexi ci mom ñun nak dañuy sante yalla bu baax bi mu ñu boolee ci li nga xamanteni moy liggéey bi ci ndigalou son excellence monsieur le président de la république Macky Sall fàttali won nañ ko sank dinañ ko wat ku ne xamna na bi nga xamanteni jox ko bis bi té ku ne xamna digëm tamit ak Cheikh Momadou